bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajmain barkeb sëriñ Tuuba assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki seen mbokk Alioune Badara Ndiaye moo bëggoon a laay biiranteeg yéen ci lu gàtt njariñ moo di dafa am xasiida gu gàtt lool ci gisin gu sëriñ tuubaa def goo xam ne sëriñ tuubaa ci boppam daa wax ne képp ku koy jàng doo soxlaati ay garab doo soxlaati doktoor te it boo faatoo ba tàqalikook sa waa kër ak say soppe ñaari bayit yooyu ñoo lay ramm ñaari bayit yooyu ñoo lay ramm loolu nag bala ñoo tàmbali ñu leeral fu nu jële jëmmi xasida googu ndax whatsapp dafa doy waar information yi ñu ciy jàllale te wérut daa bari moo tax kuy wax rek boo leer li ngay wax ba ñëpp mën koo vérifier dana yombal jëf ji kon xasida gi ñu ngi ko jële ci sunu sëriñ sunu wasila sëriñ Abdourahman Abdul Quddus sëriñ Abdourahman Mbàkke Daarul Mooti yéen ñëpp ngeen xam ko <clears throat> moo nu ko jox jox ko ñu bareet nag euh, moom ci boppam bind na ko ci wolof lii ma wax nii li sëñ Tuubaa bind ci tarjumaan ji moom bindaan na ko ci wolof dinaa dugal photo bi yàlla dogal na ay xasida yu bari la yu am njariñ lool lool bi ma koy jàng bëggoon koo mokkal ba mu demee ba des xasida ga ca mujj téere bi daan may réer ma te ko ca daara ja xale yi xam naa euh, ñoo fa jaar ma delluwaat fa moom ne ko xasida gag ma joxoon de daa yéeme te am solo lool waaye damaa juddu doon a mokkali yépp mu ne ma xasida gi de fi mu toll nii jeex na joxe naa lépp ba mu jeex waaye nag am na ku ma ci bindaloon am na ko xam daa jëloon xasida gi sotti ko ci am bind muwalaat ko jox ma ko dangay ngay xaar tuuti ñu dem ci biir ma seetal ko ma ne ko baax na ñu xaar tuuti mu dem ci biir ma taxaw ci bunt bi mu seet ko jox ma ko kon neex naa vérifier képp ku ci bëgg lu leer rek boo wootee daarul moxti wala boo siyaaree ji sëñ ëbb rek nga wax ko ko incha allah dana ko dëggal kon wér na li ma ci dégg nag mooy dafa wax ne ku koy jàng doo wa garab doo aajowoo docteur ci sama dégg-dégg ma gis ne aaj feebar mënta ñàkk yàlla moo ko bindee doomu aadama yonent yi ñëpp dañuy feebar yonent yëpp dañuy feebar waaye gis docteur it mënta ñàkk ci boo feebaree kon li ma ci dégge man mooy feebar yu bon yi moo tax a jóg xasida gi feebar yu bon yi mooy yi xew mbokk yi gis nga nit ñi léegi ni ñuy faatoo comme ay picc comme ay picc yi ak i ak ak ak i bàyyi ma dañuy faatu rek te daa am feebar yu bees yu xew yoo xam ne bu la dalee yàlla nañ ci yàlla musal da faju di faju mën ngaa fajoo cinq millions yàgg-yàgg da ngay mooy feebar yi nga xam ne dalay ndóolloo ba noppi lekk sa xaalis bépp ak mbokk nga doog a faatu kenn mënu koo faj bu la xasee ba dal rek dalay wóor na yow mii ci faatu nga jëm muy cancer cancer du sein cancer euh, du fois dégg nga insuffisance insuffisance rénale muy wàllu euh, roñon dégg nga ay AVC ay crise yu gaaw dégg nga ay tension moo ko faat moom de mi ngi toogoon fi léegi faatu gis ngeen mbokk yi ni mu baree damaa jàpp ne xasida gi loolu lay wax ne doo soxla woo garab yooyu ak dem di seede docteur ngir feebar yu bon yooyu yi nga xam ne da lay tëral ay at nga doo ko faatu loolu laa ci déggee. moo taxoon ma ne ko naa naa ko labiré mbokk yépp ndax ñu man cee bokk jariñu ànd nag ànd ak loolu lépp nag téewut da cee boole def sabab bi àdduna mooy lépp loo yëg ne day joxe feebar yooyu nga di ko wattandiku ndax mbir day dox ci ñaari tànk zahir ak batin kon zahir da ngay sàmm sa bopp lépp loo yëg lii baaxul ci feebar naa nga nga bàyyi ko booleeg di jàng xasida gi incha allahu rabbi yàlla man na la musal ci feebar yu bari yooyu di dalaate te néexute mucc ndax da kenn xamul lu koy joxe daanaka kon xasida gaa ngi nii sëñ Tuubaa dafa wax ne bismillahi rrahmani rrahim taw amaani yugniyaani alqaaria an al adwiyati waltabib wa yashfacaanihi gadan inda mufaaraqati al ahli walxabib loolu waxoon naa ko ci wolof wa sallallahu ala sayyidina wa mawlaana muhammadin al mubri al asqaam loolu mooy tarjumaan ji ñaari bayit yaa ngi nii qalbiya xad sofa wa jismi suxiha walan azala soofiya musaxaha qalbi wa jismiya tafaaraqa alxazan ka maradin lil arshi ma min nittazan xasida gi jeex na ñaari bayit yooyu la képp ku koy jàng suñ borom dana la musal ci xeeti feebar yu bon yi dalaate te kenn xamul lu koy joxe Eh, incha allahu rabbi kon bu ngeen xoolee ci photo bi bi may waaj a dugal sëñ Abdourahman bindaan na ci suuf daan ne yaari bayit yoo xam ne ku koy jàng mu doy ko sëkk du aaja woo garab du aaja woo docteur te ñooy ñoo koy tinu bu demee ba gisatul mbokk gisatul soppe bu demee ba faatu incha allahu rabbi yal na yàlla dëggal suñu yaakaar jooji ñu ci am te fajal ci aajo yi mboolem ku ko jàng ba feebar yooyu doola la du la eh, daal incha allah rabi te ñaanal mbokk mi ko doon def en ligne Badara Ndiaye te ku ko jot boo ko mënee lay biree sa morom incha allah rabi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu addiyee Sëriñ Tuubaa